yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñu ngi leen di nuyu fii ci jumaay Tuubaa di fi dalal waa jumaay Tuubaa ni ñu ko baaxoo def at mu jot. njabootu soxna jumaa Sey xam li ñu doon ci Jumaay Touba diggante soxna jumaa ak Jumaay Touba tax at yëpp ñu lëkkali seen jëmm ji ak seen tur yi waxtu nekk bu ñu tollee fii ñu andi jëf yu rëy rëy rëy fii ci Jumaay Touba kon ñu ngi leen di nuyu tur Cheikh Mamadou Mountakha mi toog jotaayu Cheikh di leen nuyu ci turu Serigne Afia Bousso di leen jox ay nuyoo. yu yu mag ngir ngeen tegal ñu ko ci loxo njabootu soxna jumaa sey ak ku ci njabootoo ak noo ci mën a njabootoo nuyoo yooyu dañ koy teg ci loxol Cheikh Mamadou Mourtada ak sëriñ yi daali ak soxna maam Fati ñu fekk kenn ku ci nekk ku bokk ci njaboot ga fa nga nekk ñu jox la nuyoo boobee xam ne waa jumaa ji ñoo la ko delloo nuyu la ko ñu dalal fi njaboot googu nag sëriñ Modou Moussa Moutalla Falloul ak ñi mu àndal yëpp ñëw nañu ko baaxoo def muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñoom ñëpp ñu àndandoo dajale seen i ye ñëw bu ñu dajale woon seen i addiya yónnee ko rek doy na waaye du ñu ci yam dañu dajale seen i addiya waaye nag ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw ci jumaay Tuubaa ji xam ne waa kër soxna jumaa ñoo ñëw ci juma kon nag loolu doo doon jëf ju rëy joo xam ne tegtale ne li yéen li leen seen maam bàyyeeloon ba tax mu tuddi seen maam ja jumaa ji yéen ñi sëtu ci jumaa yéen a ngi donal yéen a ngi euh, dundal ndono loolu ndax ku dem ba tudd jumaa cër yi nekk ci biir jumaa nga tudd leen tuddiwaat leen kon loolu ak xër ci jumaa ji la ndax boo doon jumaa laneen mën naa cee nekk ci biir xutbaak lépp ma nga woon ci biir sooroon rek mën naa nekk ci biir waaye nag loolu xër la war na ne bu mu tuddee jumaa ba noppi tamit dafa tuddiwaat ci biir jumaa ji ay cër yoo xam ne li mu am Serigne Touba xam na ne jumaa ji mën na koo may ne kon nag yéen bu ngeen duggee di xeeñtu loolee di ko dundal jëme ko ci daayira Muxaddamatul Xidma jëme ko ci ndogu yi ñi ngi leen di jot ay cant ak i ngërëm ci turu waa daayira bi yëpp turu seen aafiya di leen xam ne lii lu sedd xol la lu lu daal lu dëgëral yaakaar la ndax la mag ñi moom la lañ mooy la dëgër bëkk dem rek maa ngi koy wax ni Serigne Saliou da ko waxoon kilifa ni ko mag ñi de seen leen ñor ku seen mbir ñor lañ koy jox di leen yittewoo mbir mag ñi kon nag yéen mel na ne li mag ñi eh, nekkoon yittewoo ngeen ko ba yéen a ngi dox jëm ci ñi ngi ñaan yàlla sunu borom kattana leen dëgëral leen ba li ngeen yéene liggéey lépp ngeen def ko te bañ ci ànd benn ndog te ànd ko seen kilifa kon xam naa dañuy dalal Serigne Moustapha njaay mu bi ci jotaayu ñi nga xam ñoo andi bu noppee ki ci tege tege ci bu noppee ñu jox Sëriñ Abdou Lahad Bousso Muxtaar mu tontu ko ci daayira Moukhaddamatoul Khidma bu noppee ñu def yëkkati jotaay bi. ak ci turu Serigne Abou Mbacké moom Cheikh Mouhamadoul Fadil ak mboolem njabootu Serigne Fallilou ñëw tey jii ci turu Cheikh Mouhamadoul Mourtada moom Cheikh Mouhamadoul Fadal ci njabootu soxna Juma sey ñi jiite njaboot googu di Serigne Modou Moustapha moom Cheikh Mamadou Mourtala ak Serigne Bamba Ndiaye moom soxna Maam faati ak Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Jaddali ñu ànd ak sunuy jigéen di waa kër gi ak taalibe yi ak mbokk yeeg xarit yeeg wëllëre yi di am mbégte rek di wax ne tey jii dañoo ñëw ci sunu maam ndax maam weesuwul turandoo la ma waxoon daaw rek danaa ko waxaat ren jii muy sa bañ bañ noppee gis soxna jumaa ci zahir waaye noppeetuñu ko gis ndax fuñ jàkkaarloog jumaa ji rek gis sunu maam kon loolu dañ koy sante sëñ Ibrahima Sey mi nga xam ne moo ko duppee jumaa ji ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxee rek ne su yamoon ci turu jumaa rek day ëmbale lépp waaye ñi ngi ànd ak njabootu sëriñ Sooroor Sey so sëñ Sooroor moom danaa ci wax xissa bu gàtt wax ne dafa ñëw fii ci kër gi ànd ak soxna jumaa eh, bi mu ñëwee nuyu sëriñ Fallilu sëriñ Fallu na ko soorool bu ñu la tuddee mu ne ko soorool bii mu ne ko déedéet soorool bu mag bi ci kaw rek tey jii jàpp naa ne ci kaw la jëm ndaxte Nations Unies lay liggéeyee ak xubba bi nga xam ne moo tiim Cheikhul Khadim loolu rek su su doyoon na sëkk ci ay tur waaye teewul mu tuddee ay nu rahmati di teen bi nga xam ne moom la seexul xadim bën na loon boppam ci ndigal ba tey jii muy dox ak inam ne Abdallahi faaxakul la man ak euh, tur yoo xam ne xadd fakk kab midaad yi ak jaawartu euh, ak fulku ba ba nga xam ne sax dafa dégg rek sëñ bi ne mi ngi ci géej gi bind baafale ak galwaa mu am ay seex tudde ko baafale ak galwaa kon kooku daa seeyoon ci Serigne Touba kon ñun loolu lañ ñaan yàlla seey ci Serigne Touba tax ñu xam ne tey jii lépp lu ñuy def ci jumaa ji ak ku ko mën di def ñun ñoo ca war a jiitu te ñun nga koy defal looloo tax ñu am yéene rek bagage yi ngeen gis muy loo xam ne dañ cee dañ ko xeb lool waaye tey jii su fekkoon ne tey la sëriñ Fallu waxoon dañ dañ fa toll ñu tolle la ñu tolle la ko fi waaye saa bu ñu ko sëñ bi weesoloo dinañ ko weesu ndax ay milliards sax jombul ñu indi ko ci jumaa ndax sëñ Tuubaa liggéey na ko fi te wax ne képp ku feeñ ci jumaa ji adduna da nga feeñ adduna feeñ àllaaxira kon loolu mooy suñu mbébét jarul sax ñuy lim bagage yi ndax dañ ko xeb waaye lépp daal loo xam ne danañ jëm ci ndogu li ngeen di def te am ci ndigalu Serigne Mountakha ak mboolem njaboot Serigne Touba loolu moom képp ku fi ndog suñu sañoon bis bu njëkk bi ba bis bu mujj ba lépp lu fi waay ndogoo na ngeen ñu ñaanal ba nga xam ne lu fi waay di ndogoo rek ñun ñoo koy indi. indi nañ itam loo xam ne soxna Jumaa moo ko tàmbale woon ci dundam daan ko def waaye booba xëy na lim bi gàttoon na waaye bëgg nañoo yokk ndaxte bëgguñu mu am gi ginnaaw bale yoo xam ne tey ji ak loo xam ne dañ koy nettoyé jumaa ji da cee baax indi itam yoo xam ne Euh, day dindi lënd dana mat lu mat ñaari mètre ak genn wàll nga xam ne ndaama lu gàtt gàtt yi itam dana tee su taxawee dana mën a dindi lënd yi loolu itam ñeneen ñu ñaanal ba nga xam ne am nañ yéene tey jii oto yi nettoyé ci jumaa ji te ñu koy gis madinatul munawara sax tey jii ñun ñu dem ba indil leen ko ngir jëm ñi sëñ ci waa loolu daal la ñuy sàkku ci sëñ bi ngeen waxal ñu ko sëñ muntaxa waxal ñu ko sëñ affaire mu wax ñu ko sëñ muntaxa liñ ciy dolli itam mooy bëgg nañ ngeen boole ñu ci liggéeyu jumaa ji ndax defuñu lu ko ëpp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 di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal mbooleem njabootuk Serigne Touba gépp di jël suñu nuyoo boo xam ne mi ngi jóge ci suñuy kilifa ñu Cheikh Mouhamadul Mourtada ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal Soxna jumaa ak Cheikh Mouhamadul Fadal di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdoul Ahad ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñooy daayira waa mu xaddamatul euh, xidma nga xam ne yéenay liggéeyal Cheikhna Ahmadul Khadim fii ci li nga xam ne mooy barabu jumaay Touba. mu bokkoon ci naal yi nga xam ne ku nekk xam na ne itteem moo nekkoon jaamu yàlla ba tax mu tudd Abdullahi wa xaadimu rasul kon nag loola su ngeen ko ca neelee defe naa ne newal ngeen ko ci lim gënoon a bëgg kon yàlla na ngeen ci làq ngërëmam ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar ñu ñëw fii nag comme ni fi ñëwee woon daaw nga xam ne daanaka suñ asaka yéene rek lañ andi waaye li li li nekk ci xol yi moom ëpp na lii lépp buñ sañoon bu koor gi tàmbalee ba ni muy jeex mbooleem liñ fi jëfandikoo rek ñun ñoo koy indi ndax ndax yàlla na tey war na kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Mourtala comme ni ko sëñ Moustapha waxee rek daanaka jërul jërul jaaraat xam naa li yonente bi waxoon rek waxoon na ne e, julit bi fi bàyyi ko lim na juróom yoo xam ne seen tiyaaba du dog mukk ba muy lim yooyee itam daf caa boole woon ki dëddu àdduna ba nopp bàyyi fi njaboot gu baax boo xam ne dañ koy wuutu gannaawam. soxna si nag bu demee bàyyi fi ak njaboot muy Cheikh Mahamadul Mourtala ñu meññ ñu ñun kon ci biir njaboot googa ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci ci lañ doon tey ku nekk xam ne li nekkoon yéene mooy li tax waajuram ba tànn ko tuddee ko jumaay Tuubaa bu sañoon lépp lu ñu def ci jumaa ji muy ci wàllu yeesalaat ko ci wàllu lépp loolu moom moo bu sañoon moo koy def ginnaaw nekku fi nag ñu wutu ko gannaawam suñu asaka yéene ñu andi ko kon ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla di sàkku ci yéene ngeen ñaanal mu yokk bu baax a baax ndax si Ibrahima Seye moom ni ko suñ sëñ faa waxee rek daa jeexoon takk ci sëñ Touba am na ci loo xam ne neexut a wax ci rajo euh, ndax euh, secret secret loo xam ne desu ko tudd waaye nag euh, ñi ñi xam démb xam cosaan li xam nañ lañ moo nekkoon taxawaayam ak pëspeesam pësteefam ci diggam ak sëñ Touba loolu day doy sëkk ndax jumaa ji ginnaawam moom yoroon na ko ginnaaw bi mu fi jógee itam bàyyi woon na fi sëñ Ahmadou Moukhniyan mu yor ko doon doon doon wéyal la mu yoroon kon loolu su wëlbatikoo tuddewaat ko jumaa ji loolu day day day day delloo buum ca boy boy kon ñu ngi ànd ak mbégte mu yaatu euh, te di leen ñaanal ñu yàgg fee ñëw yàgg leen fee fekk euh, suñ borom yokk leen yéen yokk seen taxawaay bu baax ndax euh, ni ñu koy waxee rek nit moom su amee mbokk yu baax ndax li suñ tubaa waxoon rek nit ku nekk mën ngaa mbokk waaye mënoo leen a ku nekk mën ngaa raw say mbokk mën ngaa gën say mbokk waaye mënoo leen a génn nit ku nekk mën ngaa raw say mbokk waaye boo leen xaarul bañ ñëw nga ànd ak ñoom dox sax doxin mën naa sooxe te yéen nag ay mbokki sëñ bi ngeen tey yéen a ko féete ci ci fi ngeen ko war a te euh, moom ni ñuy waxee rek loo waroon a ne ku la ca neew a yow yaa ko ameel ak cant ndax dañ cee waroon ne bokk ko yéen cër boobu suñu Moustapha waxin ñu ngi koy am lu ngeen ju ci cërale itam moom danañ ko féetewoo te fas yéene koo doxee itam ni ngeen ni ngeen ni ngeen ko bëgg di ñaan suñu borom euh, weer wi nga xam ne dugg nañ ci ci bisimillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ci alhamdulilahi rabbil alamin la ci suñu borom dee ci fukki fan yu njëkk yi nga xam ne yërmande la ja topp di njëggal ja ca des ci goreel ab jaam ci sawara defe naa ni yërmande ji moom mi ngi jàll kon yàlla na yàlla yàlla nañ dugg ci biir yërmande jooju te te motti la ci des lépp ñu ngi sant lépp tey gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Mouhamadul Moustapha ñu ngi lay nuyu di nuyu sa rakk yu tedd yi nga àndal di leen ziyaara bu baax ci turu Serigne Afia Bousso mi xam ne mooy jiitul daayiratu Muqaddamatul Xidma ak kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo ko fi teewal waaye di nuyu kilifa yu tedd yi ngeen àndal yëpp nag ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn di jël nuyoo boobu nag di ko sellal na mu gën a sellal di ko rafetale na mu gën a rafetale na mu rafete di ko yóbbante sunu kilifa sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne mën nañoo wax ne kenn la ci ñun ci liggéey bii ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa ci barab bii ci ay taxawaayam ci yitteem ci ak yëgam ci léppam ba ci ba sax ay conseil am dana toog sax ba mu yàgg mu yëkkati téléphone am wala conseiller la loo xam ne di looy jagal liggéey bi la kon moom mi ngi ci biir liggéey bi waaye noonu la ñuy nuyoo itam ay ay rakam di Cheikh Mouhamadul Yadaal yi ak euh, soxna maam Fati leen ñaanal ñoom itam suñu borom defal leen tawféex ak wér ak gudd fan lool di amaan mbégte nag mu rëy ci bis bu tedd bi nga xam ne ñëwaat ngeen ko tey jii ñëwal fi seen maam mu ñëw indi addiya ju muy jox bajjanam waaw <laughs> ah, noonu lañ koy mën a tuddee ñëwal ngeen seen maam andil ko addiya ju muy jox bàjjanam euh, te loolu nekk loo xam ne lu ñu xam la ci yoon wi miin nañ lool ne kuñ tuddee buñ tuddee nit ci kilifa dañ ko koy jox mu yar ko bu ëllëgee su demee ba génn ci loxoom it fu mu mën a dem dana ko fa wutalub daayira wala mu taxaw taxawal ko fa loo xam ne nii lu mu koy li lu muy liggéeyal yàlla ci moom lay doon moom mii nag aw turandoom na ngeen ko fexewoon daaw day turandoo kiimaan ndax turandoo woo xam ne yow miñ ko tudde yaa mag lañ la tudde loolu rek tegtal la ci pasteefu way juram ndax xam naa ne ndigal la lay dajal waaye jëmmi tabax bi moom moo ko mag foofu njabootam sax a mag sotti tek tabax bi suñ négoon ba tabax bi sotti ñu tudde ko danañ ne daa mat ñu door ko koo tudde su demoon ba nga xam ne jamono yooyu yaakaar woon na sax waaye jamono yooyu ku yor xelum kese képp te xamoo lan mooy liggéey Sëñ Tuubaa doo mën a gëm liggéey mën naa sotti ndax wax nañ ne am na ci yenn mag ñu sax ñu daan wax naan sëñ Mourou Moussa de xanaa xamut li muy def lii mu tàmbali dóor dóorub ngeer rek kenn mënu ko ko matal waaye ba mu ko déggee def ne kooku day xamul sëriñ Touba ndax boo xamoon sëriñ Touba du lool lii ñu ko tàmbali dana àgg ba naa tey àgg na ba yokk euh, kooku nga xam ne nag mooy sunu maam jooju di Cheikh Ibrahima Seye te doxee woon noonu ak sëriñ nga xam ne moom lépp sëriñ Touba da koo warmaal lépp Serigne Touba da koo fonk lépp Serigne Touba da koo bàyyi xel ba di ko ba mu jaral ko mu di ko tuddee ay doomam kooka ku sëtoo ci moom boo melee neneen nu dul nii mooy doon kiimaan waaye soo melee nii du doon kiimaan ndax dafa mel ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan da ngeen di tànn seenu njaboot ndax siddiit dafay royaat dafa mel ne mooy feeñ ci liggéey bi pas-pas boobee mu yoroon moo royaat ci yéen ñii ba tax ngeen am xel a xalaatu jëf-jëf ju toll waaye ngeen xam ne làmbutu wutoon dafa dajoon dafa dajoon loo xam ne xëy na ña dajoon boobu bëriwut moo tax bi sëñ Tuubaa jumaa ca Tuubaa rek mu xam ne jumaa dana am mu njëkkante moom njëkkante lu baax daa di daa daa di koy tudde doom ñu naan dana àgg ak du àgg mu tànn ya ca biir ya war ya nga xam ne bu noppee ba doon jumaa lay door a taxaw ñu di ko seen mu tuddewaat leen doom kooka day wane ni xam ne moom xam na xel ne lii Sëriñ Tuubaa joxoñ dana taxaw ba ñëpp di ci teg bët waaye nag balay joxe balay taxaw ba ñëpp di ci teg bët na fekk moom mu am ñu koy wooyee ci biir këram loola no kon lu rëy la taxawaay bu rëy rëy la kon nag sëriñ sëñ Modou ñu ngi lay sant bu baax ci turu jumaa ji di la sant ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha di la sant ci turu sëriñ Abou mu nga waxoon léegi ak turu kilifa njaboot sëriñ Tuubaa gépp ci liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey liggéeyaan ngeen ko dafa mel ne yéen loolee seen maam jooja defoon bànneexoo ngeen ko sagoo ngeen ko rafetlu ngeen ko yéen nga koy dundal waaye nag ma di leen ci wax lu tuuti rek mooy la Sëriñ Tuubaa waxoon ci eh, liggéey bi ne ku ci feeñ feeñ ba faw te ngeen dégg seen maam ji baax di nettali ko fii wax ne dafa wax ne bi ko suñu borom mayee daf ko ko woon ba mu gis ko malaayka yi dikkal nañ ko nekk ko dañoo bëgg nga jox ñu ko ñu liggéeyal la ko ba ne boo bëggee sax ñu defal la ko wurus wala wala wala wala xaalis mu ne leen jërë ngeen jëf sant naa leen baax waaye nag damaa am njaboot te bëgg ñu jariñu ci nee na jinne yi ñëw wax ko loolu mu ne leen mu waxaat leen loolu ne leen jërë ngeen jëf sant naa leen dama am njaboot te bëgg ñu jariñu googee mu amoon te bëgg ñu ñoo taxawal lii ba mu egg fii waaye nag ngeen yëg ne koy gunge ba faaw ndax Cheikh Mamadou Fadil wax nga ko léegi ci biir wax ji kere bi muy jébbale jumaa dafa ñëw ba sëriñ bi mu ne ko jamono de fii la toll ñu toll fa ak yow fii lañ toll toll fa ak yow waaye bu ñu ko weesoo ak yow ko ak yow kon nag kon fii nekkagul or wala mu nekk wurus wala mu nekk jama jamaa rek mën naa mën naa romb fi mu nekk mën naa romb fi mu nekk te kooku du waxantu kon nag yéen teg gi ngeen ci teg seen loxo ngir mu woy ndax fàttaliku seen maam jooji nga xam ne am na cër bu toll noonu ci jumaa ji te cër boobu yombut te yaakaar ne nit njëkku ko ko am keneen ku koy amaat it ginnaaw nga koy am loolu kon rafet na lool ngeen taxaw taxawaay bu mel nii bu ngeen ko taxawee du doon kii man kon nag jërë ngeen jëf yàlla na ko suñu borom nangu te jotale ko moom ca yool ba te defal leen ci yéen it yool ba kawe seen jot te loolu Serigne Touba digle woon ci euh, ci ci ci liggéey bi ci ñu ko doon liggéey sunu borom defal ko ko moom mu nga xam ne moo jiitu ci liggéey bi waaye defal leen ko yéen ñi nga xam ne yéen sa toj ñoom waaye defal ko ñun ñi nga xam ne ñoo liggéey bi ñun ñëpp euh, te yàlla nañ fi teewaat na gën a déwén te yii ngeen fi indi ni muy setale yàlla nañ suñu yàlla nañ setale suñu bàkkaar ñun ñëpp ak mboolem koo xam ne jàpp na ci ak mboolem koo xam ne jëf na ci yeneen yi nga xam ne ñooy jëfandikoo itam lépp lu ñu digee ci ko dagal koor yàlla nañ ko ci seen defal barke Cheikhul Khadim barke Cheikh sët di ko fi indi euh, fekk euh, <laughs> <laughs> suñu sët loolu itam mat naa ñaanale bu baax a baax a baax ndax ku sañoon booy tàmbalee liggéeyam suñu tubaab da nga sax sax ca nag mooy lii maam Ibrahima Seye moom sax na ci ndax nekk na ci ba jóge fi ay doomam nekk ba jóge tey jii ay sëtam a nekk nii di ko def di ko def waaye sët yooyu nag yàlla na leen ay sët yu koy def ci barke Cheikhul Khadim jërë jëf sant nañ bu baax a baax a baax a baax jëf ci bari na lool sakkan na lool xam naa li ma ci xaw a jaax rek mooy mbàkke mbàkke yoo xam ne war nañ ba heure bi ñuy joxee lu mel nii moom xaw ma nuñ ko defee waaye damaa damaa gaan sëñ Mourtala leen forcé ñu andi ko waaye <laughs> moom wala sëñ Moussa sëñ Moussa Ndiaye mi xam naa lépp mooma loolu ak bàjj maa ngi fàtte waaye bu doon yéen rek moom xëy na du demee nii. jërëjëf waaw kon nag jërë ngeen jëf. مهد وكن لمن لخبر رمان وابل جميع الخلق رحمه ani sharri man qur'anuhu xaraat hudumatal musafa an kulli mafsadatin wa taramil xalxaya man jadahum badaa ya malikal mulki ya man jalla جميع الورى يا هادي الردى موت ما خدنا والقلب من دلال بجاه أبدا لمن لله